glory glory man united salaamaaleykum sama gars yi ziar naa leen donc ñu jàll ci épisode 2 bi euh, pour def suñu débrief début de saison mu nekk des débuts ratés contre Crystal Palace ñu perdre 3 buts à 1 à domicile mu nekk nag match boo xam ne Manchester def ci produire benn contenu bu médiocre euh, mu nekk match boo xamante ni dafa firndeel frustration ak njàqare bi amoon ci fans yi li ko waral nag un mercato raté jusqu'à présent puisque mercato bi des na quelques jours et on espère que direction bi dina rattrapé wu Euh, puisqu'on avait cinq secteurs yoo xam ne ci effectif bi dañ ne woon coûte que coûte il faut que Manchester renforce ko muy latéral gauche bi ak central bi milieu de terrain bi excentre droit bi ak attaquant de pointe bi ñu gisoon ne il fallait avoir des renforts te jusqu'à présent gis nañ ne benn renfort lañu am muy au niveau du milieu de terrain mu nekk Donny van de Beek nga xam ne sax moo nekkoon l'unique buteur contre Crystal Palace. donc mu nekk loo xamante ni njàqare la woon ak frustration te loolu noonu match bi daf ko confirmer te ñëpp bokk nañ d'accord ne il faut que Manchester yokk qualité ci effectif bi ku ci mel ni Luke Shaw mi nga xam ne joueur la sax bi match bi jeexee wax na ko explicitement ne équipe bi dañu war a améliorer qualité équipe bi dañu war a jënd ay joueurs ci ci ci gàttal. donc mu nekk loo xam ne club da ko war a def te ren xam nañ ne Angleterre ñëpp d' accord nañ ne big foo amu fa big six la ñuy wax wala à la limite ne big eight ndax te am na ay club yoo xamante ni yu bari ku mel ni Everton Arsenal dañ leen xaar ren ci haut de tableau bi. ñu ñëw xëccoo ñu ñëw chamboulé top foo bi ku mel ni Everton ku mel ni Wolverhampton xam nañ ko ci constance bi mu am année yi passé donc ren pour nga bokk ci débat yi il faut nga am benn effectif bu large ak benn système de jeu bu cohérent te gis nañ ne Manchester dafa def défaut ci ñaar yooyu noonu système de jeu bi doxul te que équipe équipe bi dafa manqué qualité ndax amul euh, amul profondeur de banc te loolu dañ ci ñëwaat incha allah léegi euh, bu ñu ñëwee carrément ci ci match bi. donc euh, dañuy gis ne match bi dañ ci am ñaari jàngat ñaari mooy benn bi dinañ wax ci effectif bi ak qualité de jeu bi mu fournir donc problème yi nga xamante ni ñun waxoon nañ ne moo fi am moom la ñu gis ne moo fi des ba léegi beneen bi daañu wax ci choix coach bi pour ñëw nag ci effectif bi ak qualité de jeu bi nga xam ne produire nañ ko euh, li ñu gis mooy li nga xamante ni amoon na sous Van Gaal am sous Mourinho am amoon su Ole ñëwaat amaat nii puisque même daaw sax doon nañ ko du amoon nañ le même souci muy lan équipe bi nga xamante ni dafa paresseuse équipe bi nga xamante ni du daw. loolu noonu su Mourinho waxoon nañ ne peut-être système de jeu bi Mourinho doon teg la affaire yooyu noonu loolu moo arrangé wul ñu ne d'accord ñu indi Ole mu changé ko pour un moment après mu reprendre parce que bu ñu xoolee équipe Manchester Manchester dafay daw moins que ses adversaires te booy daw moins que tes adversaires soo deful nànk doo gagné wala ay performance en dans si ngay def bi ndax ci ay ngay compter pour gagner parce que Manchester amuñu mouvement d'ensemble buy dem boo xoolee bu ñu dem pressing sax Bruno mooy daw bu tourné day wër coéquipier am fu ñu nekk ci terrain bi le reste ils ne suivent pas te loolu dafa nekk un problème boo xam ne dafa yàgg Manchester te résoudre luñ ko ba léegi ndax équipe yi mu mës a football yëpp boo xoolee le grand Manchester de Sir Alex Ferguson nga xamante ni sax ñëpp xamoon nañ ko ci contre attaque muy système de jeu terewul joueur bi ñoo daan gën a daw ces même chose. Euh, Bayern bi nga xam ne ren moo dominé les débats nation euh, moo dominé les débats au niveau européen tamit même chose donc ñoom dañuy gën a daw que leur adversaire lu tax parce que loolu day créer plus de mouvement plus d'espace ensuite day permettre nga bloquer sa adversaire pour mu créer du jeu mais nag bu ñu xoolee Manchester moom moom moom mooy daw moins déjà sax Donny van de Beek mi nga xamante ni mooy la nouvelle recrue jógee Ajax moom bi match bi jeexee wax na ko explicitement nee na le jeu est très seen côté. amul mouvement bu bari ci Manchester United donc mu nekk un vrai problème boo xam ne Ole daf ko war a résoudre a imposer wu ak système gis nañ ne pressing moom mënuñu ko on fait semblant de faire un pressing mais honnêtement demuñu au pressing parce que benn joueur mooy mu nekk loo xamante ni war nañ ko régler gaaw deuxième bi nag ñu ñëw ci choix yi nga xam ne moom la Ole def coach bi. donc c'est des choix yi nga xam ne c'est des choix yi nga xam ne ñun d'accorduñ ci même si xam naa ne pro Olé yi duñ d'accord ak man mais daañ leen wax lu tax li tax mooy par exemple le cas de Wan-Bissaka Wan-Bissaka d'accord dafa demoon Dubaï jugee na Dubaï mettre ko en quarantaine donc il s'est entraîné deux jours avec l'effectif donc normal coach bi dal di koy génne ci onze de départ bi donc chapeau au coach d'accord nañ ci choix boobu noonu c'est un choix fort mais bu ñu toppee logique boobu noonu tamit dañ ko mettre en quarantaine pour cause corona mu entraîné que 4 jours avec l'effectif même le match amical contre Villa il a pas joué donc ku mel ni kooku tamit nga jël benn choix fort ci Bissaka mais moom nga ñëw alors que tu as des choix am nga am nga yeneen choix ku mel ni doni van de Beek joué na match amical bi ku mel ni Donny van de Beek dem na équipe nationale donc mi ngi woon en form physique kooku mën nga ko footballoo ku mel ni Fred même chose mën nga ko footballoo mais dañu gis ne dafa def benn choix fort ci Bissaka mais côté Pogba deful choix fort te match bi bu ñu ko seetaanee da gis ne physiquement Pogba il était dépassé par les événements donc loolu mu nekk benn choix boo xam ne on l'a pas compris un deuxièmement ñu bu ñëwee ci context boobu ba tey dañuy gis ne ku mel ni Marcus Rashford depuis retour blessure am daaw ba léegi des performances médiocres lay produire wala des performances moyennes mais gis nañ ne chaque fois coach bi da koy jox plus de crédibilité donc des matchs yoo xamante ni benn solution amul. da koy bàyyi ci terrain bi 90 minutes des fois 88 minutes donc duñu gis euh, jamais mu daal di koy changer te loolu daf ñuy jaaxal benn instant même si newuñu ci vestiaire bi mais choix boobu duñ ko mën comprendre sur titularisation Marcus Rashford te il est moyen bien te yaakaar nañ ne ci banc bi nag même si bu nekk qualité amul ci banc bi ñu nekk ci banc bi war nañoo mën a apporter plus que li muy apporter actuellement. tey par exemple bu ñuy joué équipe yu baax dañuy ne ku mel ne Anthony Martial démb gis nañ ne il était jotul benn bal dans une situation amul benn bal bu ñu ko paas ci situation bu te Anthony Martial ñëpp xam nañ qualité am bu bu décroché ci gauche bi donc pourquoi pas ñuy génne pourquoi pas dans ces cas là nga génne ku mel ni euh, Rashford décaler Martial parce que Martial bu demee à gauche danger bi daf koy créer foofu loolu noonu ñëpp xam nañ ko même buy jouer équipe boo xam ne il joue ba moom il est bien techniquement bu nekkee à gauche il crée le danger te gisuñu benn yoon Ole essayer def loolu noonu. te banc bi joueur yi fa nekk ñun gis nañ ne war nañoo mën a apporter plus que Rashford parce que Rashford il n'apporte rien il n'apporte rien te gisuñu benn yoon mu change ko nag loolu mu nekk tamit choix boo xam ne jaaxal nañu lool te dañuy gis ne jouer contre une équipe qui joue bloc bas ku mel ni Mata yenn match yi nga xam ne am na ko daaw moom ak Bruno ci biir terrain bi dañuy wane ne ils sont ils sont à l'aise pour trouver des solutions te ba tey du gis ne des fois bu ñu tasee ci bu ñu nekkee dans situation la war na mën a modifier système am mais du ko def mais dafay préférer jouer avec ce même système là qui peine face à ces équipes la donc nag mu nekk des choix yoo xam ne daf ñuy jaaxal ci Ole te ñun dañu gëm ne football ñaar moo mën a nekk benn da ngay adapter sa système ci say joueurs wala say joueurs adapté wu ci sa système te gis nañ na coach bi defu ci bii defu ci bee. Euh, démb euh, Abdou Karim mi nga xamante ni mi ngi ci groupe Man United teel 221 bind na benn article très intéressant buy dem dans ce sens la te mu ngi doon énumérer ci article bi des systèmes de jeu te man personnellement gis naa ne système de jeu yooyu noonu Abdou Karim daal di énumérer bi nga xamante ni mooy 4 4-4-2 euh, en losange bi milieu en losange bi mooy système de jeu bi ñu gën a arrangé donc Ole nag ñun yaakaar nañu dina jéem a def dina jéem a modifier système am xam nga pour mën a adapter joueurs yi ndax ñu mën a bokk ci débat yi incha allah donc gars yi voilà ba beneen yoon incha allah.